وسن الهداية xibaar bu neex ba yegsi na xéewal gu màgg ñëw na Touba Argentine voyage àndandoo bi wóor ci képp ko war a voyage te soxla billet d'avion mën nañu jokkoo ak waa Touba Argentine voyage bépp billet d'avion boo bëgg ak foo mën a nekk ci àddina mën na la ko jaay ci ay njëg yu xéewale rawatina yéen ñi nekk Brésil Argentine ak fépp ci Amérique latine yéen ñi nekk ci hors Amérique latina bi maanaam nga nekk Sénégal sax bëgg jëne billet d'avion boo xam ne Europe nga boo jokkoo ak ñun waa Touba Argentine voyage ñu jaay la ko Touba Argentine voyage da leen di ni mu defal leen ko yu ci mel ne réservation d'hôtel assurance de voyage ak maladie ak yu ci aju bu ngeen jokkoo ak ñun waa Touba Argentine voyage ñu defal leen ko ci ay njëg yu xéwale fépp fu ngeen bëgg a ci àdduna bi billet yi jàppandi nañu ca Touba Argentine voyage lépp nag ci noflaay gu mat sëkk waxuma nga nekk Argentine wala Brésil rek wala ci am Amérique latine bi waaye foo nekk ci àddina soxla billet d'avion boo ko ak ñun ñu jaay la ko ci ay njëg yu xéwale bu nëpp jox la suñuy compte Touba Argentine voyage woote leen ci plus 549 223 693 76 42 plus 549 223 693 76 49 Touba Argentine voyage seen doole muy billet d'avion yu wér te wóor te yomb.